jógee Touba depuis démb euh, dara waralu ko lu dul euh, ñëw tànku ziar ci occasion màggal màggal bi nga xamante ni bés la ci bés yëpp importance ci Sénégal ak ci Afrique euh, ñëw bi nag di ñëw boo xam ne dañuy ñëw di ci turu président Amadou Ba mu yebal ñu ci ku tedd gi Serigne Mountakha yàlla ko yàlla yokk wër ak fan yu gudd waaye yónni ñu ci mboole mi famille Serigne yu nekk fii ngir ñëw jébbal leen ay nuyoom ay ziaram ak feddali kóllëreem ci ñoom démb sëñ Mountakha defal ñu lu rëy ndax ci waxtu wu xat mu yaatal ñu ba déglu suñu message ñaanal ñu waxaat kàddu yu tedd yi mu waxoon Amadou Ba

ku ñëw fii ci jamono ji ñu nekk muy jamonoy màggal barke dong nga fi jëlee ak njëriñ moo tax ñu sawar nag ci yónni gi ñu yónni fii di profité ñu nit wax dëgg yàlla di feddali suñu kóllëre ak mboole mi am di jàmm ji ñu am fii ci Touba waaye di wane sunu engagement ci wetu président Amadou Ba ci lii nga xam ne sumb na ko muy assumer responsabilité bu bees ci réewum senegal ngir liggéey ngir jëriñu senegal réew mu dal réew moo xam ne dafay am jàmm ju mot sëkk ni mu koy faral di wax liggéey boobu nag ñu ngi ci ci wetam waaye am nañ ci cawate lool gannaaw ba ñu ñëwee xool kilifa yi jaare leen ñu ñaanal ñu ñu am ci yaakaar. Serigne Aliou Sall ñu ngi lay delloo ab nuyoo yaak ñi nga àndal ñëpp rawatina Serigne Babacar mi nga xam ne foo gis ci amuru gis ko. ngeen fekk si alxaaji Abdoulaye Mbaye Pekh mi nga xam ne ni mel ci yoon murid yëpp ñépp xam nañ ko waaye ni jeexe ci suñu buxaay itam ñëpp xam nañ ko kon moom rek doy na sëkk ci yitte ju kawe ci seen digg ak yéen kon ñu ngi yóbbanteem nuyoo ci Amadou Ba doon di ko delloo am nuyoo bu baax a baax ndax li nga ko waxee rek xam nañ ne yittee leen tax a fanaan ak ak jàppam ci man ndax xam naa ne sëñ bi def mu ko ñëw ba ci dëkk bi lu mu xat-xat boo mut gàllankoor te gisante wutoo moom kon nee ko ñu koy sant nax bi fi gëjee yàggut mutu sax ñaar fukki fan kon diggante bi xam naa gàllankoor tax ñëwaatut waaye bu ngeen ko teewalee rek mel na ni ñëw kon ñu ngi koy fedd lawaatal suñu kóllëre ak moom ak suñu cofeel ci moom ak jàppam ci ñun ndax day lu yàgg ndax ab diggante moom bu mate ñaar fukki at ak ñett ñeent rek du benn bis te yiw wu ne jëme na ko ci ñun teraanga ju ne jëme na ko ci ñun rawatina ak jàpp gu wóor goo xam ne luy nekk rek mu feeñal ci yéene nekk ministère des finances li muy xat-xat ak mu nekk premier ministre saa su ma ñëwee Dakar lu mu xat-xat-xat dana fa ñëw benn yoon wala ñaari yoon wala mu départ Ndakaaru ba ñëw fii waxtaan moom ba guddi mu delluwaat kon cër bi mu sédd bi ma sédd ay yaakaar ji mu am ci man xam na ko te kóllëre gi mu seq ma nit moom la seq ak Cheikh Mouhamadou Mountakha te jëkk na mu di ko sàmm Serigne bi it dégg nga li mu ko siyaare ba mu fi mujjee loolu doon na sëkk kon bu amutoon benn kóllëre ak suñu digg ak moom itam ni mu dem ak Serigne bi doon na te sama digg ak moom la yàgg na lool. kon ñu ngi koy santaat bu baax di ko gërëm di ko fasaale ci màggal bi yàlla suñ borom gàttandu ko dimbali ko ci taxawaayam ak yéen ji nga xam ne am na ko ci réew mi yéen itam ñu ngi leen di beral seen nuyoo boobu ak seen cant ak seen gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu